ndax juróon na fi coow ah. waaw waaw jamono yooyu waa ji daf ñu manqué sax ki nekkoon ministre de l'intérieur jamono jooju nu mu tuddee. <laughs> kan la ci Antoine ngay wax. Antoine la wax turam. non Baye Antoine non Baye Antoine dafa manqué nit ñi wax nga Baye Antoine dafa manqué nit ñi. bu Assane Mesere bi Baye Antoine doo dafa manqué nit ñi rek. manqué na milieu bi tuuti quoi ak. dina xam li tax ah, moom xam na yoo xam. <laughs> kon kon ñoom ñaar xamante nañ. waaye xaaju guddi la fi jógoon di di di di dànkaafu. 3 hmm, heures du matin communiqué. <laughs> ana bii moom ba fi fekkoon day dee rek quoi. teg dëgg waa yi mais léeg-léeg xam nga làkk tubaab amul mbóot. waaw hmm. ah, làkk wolof dinaa bëri ruq. waaw parce que Pastef dañ ko tas ñu Pastefu. xam nga Pastef ak Pastefu bokkul. <laughs> ah Pastef ak Pastefu bokkul. léegi lu leen di différencier. Pastef ak Pastefu amal Pastef mooy dañ lay encouragé Pasteful nag mooy dangay jël kaala takk sa ndigg nag fas yéene dee waaw mooy kii sóobu ak ki ñu orienté waaw kii dañ koy kii dañ koy dañ koy dañ koy conseillé pour mu am jom am kii nag dañ ko ko tegal ne nag ñu toll ñëw na da ngay dee baa nga dund hmm. mooy li militaires yi doon wax naan on nous tue mais on ne nous déshonore pas Seydina Issa Wade wax ko artiste. te militaires yi ñu ngi jógee slogan boobu ci ceddo yi. maa ngi nuyu waale sa Wolof. Saa Wolof di ko xoolaale établissement mu ne ceddo amul kurus waaye du rus. amul kurus waaye du rus. waaye du rus. maanaam. maanaam baatam bu ko xasee ba jénne jaral na ko dee. d' accord moo gën moo kii ko. donc bon Ousmane Sonko du politicien. déedéet Ousmane Sonko dafa ñëw ngir liggéeyal yàlla ko ci senegal jaamu yàlla lay def ko waxu fi lu dul li yàlla wax est que yaa ngi dégg wax discours am boobu moo waral sénégalais yi dégg ko xiifoon xeetu discours boobu daal di koy gëm man léeg programme Ousmane Sonko du ko liir de fenn rek laa koy teg xam nga dama jàppoon ne élection ñaar la élection dama jàppoon sàcc ñaar la sàcc bi lay tànn ak sàcc boo xam yaa koy tànn sàcc bi nga xam moo lay tànn mooy kii ñëw sàcc sa portable wala sem sàcc sa dugg sa kër mais sàcc boo xamante ni yaa koy tànn mooy bisu élection nga sangu ba set sol sa yére yu rafet dem tànn ki lay sàcc ñu jékki-jékki rek am benn citoyen sénégalais bu taxaw ne musuma sàcc taxaw ci digg dëkk bi ne musuma sàcc mooy sama programme <laughs> mhm. discours bi yomb la dégg Sénégal de mosuma sàcc. sàcc ne doo ko fi waxee. sàcc ne doo ko fi waxee. di ko yuuxu sàcc. waaw Ngar moo xam nga. lu muy tuddee di waaw parce que. sama grand frère dafa nekkoon directeur Richard Pape Sele Sow yàlla ko yàlla yërëm. amiin Mbëbës dañu defal waa Mbëbës courant. ñiy liggéey ci booru mbali bi ne ko fayal bëgguñu courant. te mu di lu baax. bëgguñu lu leer. fayal lamp yi. na lëndëm rek bu fi indi benn problème. ndax mooy ñu mën a doxal. est-ce que yaa ngi dégg waa ji donc psychologiquement. population bi dañ leen mës a tekk saret indépendance ba fi mu toll nii. ñi fi jaar comme homme politique yëpp dañu trahir peuple bi. kenn ñëw taxawu ne damay laxasaayu liggéeyal peuple bi jaamu ko. ne leen xool leen ma fii laa juddoo fii laa jàngee ba ma jàngee fii laa liggéeyee ba tey ji mësumaa jël dërëm bu ma moomul. loolu programme la. Sénégal ñàkkuñu boroom xam-xam xam nga la ñàkk ku jub. Hmm. Sénégal ñàkk boroom xam-xam de. ñàkk ñu ay liggéeykat de ku jub la ñu manqué. Hmm. aji jub waaw. li nga sincérité après ma xaama yonent yi sincères yi ñoo ci topp. Hmm. saadixin <laughs> les sincères. di nga mën nga nekk imam. mën nga nekk guide religieux mën nga nekk oustaz mën nga nekk professeur mën nga nekk avocat mën nga nekk juge mën nga nekk lu nekk yooyu ay corde de métier mais si tu n'es pas intègre l'intégrité comprendre nga léegi nag pièce bu rare boobu nga xam moom manqué woon sur le milieu sénégalais l'intégrité boobu nag moom la Ousmane Ndiaye peuple bi mhm. peuple bi gëm ko topp ko mais waxuma la sax ñu gëm ko mais dañ cee boole bëgg ko mhm. bon te tamit il faut que loolu signal la sëñ Ousmane. Mm-hmm. yàlla bu la bëggee. Mm-hmm. danaan ñëpp nañ la bëgg. dëgg la. Mm-hmm. est que yaa ngi dëgg wax. mooy xabul. yaa ngi dëgg wax ji. mbëggeel googu nag moo waral Ousmane bu laajee gars yi jox ko parce que dañ ko wóolu parce que koo bëgg dañ koy wóolu. Ah, koppar gi daal. xaalis bi dikk bu la bëggee rek la la tubaab di wax kii am capital. voilà. nit ki bu la bëggee léppam la lay jox. ba keroog muy gis safaan bi. dëgg la dëgg la. tey jii li li sëriñ tuubaa am mais Ousmane da ko am ci ban côté ay nit gëm la wóolu la boo leen laajee ñu jox la te Ousmane loolu la ko yàlla may Sénégal ay nit ñoo ko gëm wóolu ko mu laaj leen ñu jox ko ba keroog ñuy gis le contraire. Hmm. discours la rek ah Macky Sall discours la ñu defaloon deux mille deux mille onze deux mille kii ñu gëm ko lam ñu waxoon defu ko. mbaaru kii tamit foofu rek lañ koy mën a teg. non lañ koy teg ba keroog ñuy gis. contraire bi ba keroog ñuy gis contraire bi. d' accord. et puis tamit li tax tey jii xaalis bi ñu dajale nii diaspora bi message la la moo tax mu nekk message parce que picc ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf. Hmm. te Sénégal boo gis kër goo gis boo xoolee benn immigré moo ko téye. c'est vrai tey ji benn immigré boo gis Europe wala Amérique wala diaspora bi. mi ngi téye famille boo xamante ni douze personnes la di leen dundal. Hmm. immigré boo gis bu demee xam nga lan lay jaayante day sacrifier boppam xam lan lay wax li ko tax a jóg mooy ndeyam baayam ak ay rakkam ak yu magam sutura la bëgg. Hmm. koo ci laaj mu ne la di tax may sacrifier sama bopp mooy am tereel samay waajur. Hmm. booy jël gaal gi di dem yëpp xam nga lan moo leen di yóbbu. gàcce ci kër toog. da lëng mënoo faj dara. jom googu ak ngor googu lañ àttaloo ñu ne comme dee dee la rek. te benn yoon lay nekk. te benn yoon lay nekk au lieu que ñuy dund seen dund di nekk gàcce nañ dem sax risque seen dund. am jël mais tey jii immigration sénégalais immigration immigré sénégalais. Mhm. boo ko demee fekk Europe quatre-vingt-dix pour cent dañu sacrifier seen vie pour maintenir seen famille au niveau du Sénégal quatre-vingt-dix pour cent. dañuy gis benn néeg six benn néeg six personnes bokk ko. wala benn ne quatre personne bokk ko. Mm-hmm. léeg-léeg da ngay gis nit toog sax am ko ko woo téléphone mu ragal a jël téléphone bi ndax bañ nga fekk ko fi mu nekk. parce que du am fu la dugal. te mënu la gàtt. man gis naa immigration nit jabaram ñëw fekk ko Europe jabaram di ko woow mu mu laxatu ko parce que moom fi mu nekk rus na jabaram fekk ko fa. te alors que bu ñëwee fii waaw macha allah. waaw ah, mais xam nga fii sutura bi boo fi ñëwee tey ji benn weer ñetti weer. comprendre nga. sauver les apparences. waaw dajalee sa kii am sa ñetti ensemble kii am sa ñaar kii wala téye sa ñaari téléphone mm-hmm. léegi naa sax <laughs> reetaan la quoi mais jigéen ñiy jaay seen bopp boo dee kawman boo ñëwee dañ naan dañ ngay waaxu parce que nee na ñaari weer affaire bi commencé wàcc. xaalis gi jeex. <laughs> ba jeex. <laughs> naa ko naa muñal leen ko rek li mu yor dañ koo compter. est-ce que yaa ngi dégg waa ji pour te pour. non sam yàggut. est-ce que yaa ngi dégg bu baax mais nit ñi dañuy dem ci dëkk yooyu à l'extérieur gis ni tubaab yi du ñu ay jinne du ñu ay malaaka ay doomu aadama lañ xel lañ yor. ni yow mais àdduna amul secret àdduna xam nga la xam-xam liggéey ak jub. moo yor àdduna. amul ñaan yàlla amul dugg xëlwa amul dugg kii amul sëriñ bu ñaan lu amul gisaane amul yooyu jis nga yooyu daf ñuy tardel àdduna yàlla daf ko codé àdduna xam nga yaa ko côté xam-xam liggéey jub bu la neexee nag boo gëmee yàlla après li nga li la yàlla wërsëgalal nga jaamu ci yàlla mm-hmm. boo gëmul yàlla nag li la yàlla wërsëgalal nga dundal ci sa bakket wax ji jeex wax ji jeex est que yaa ngi dégg wax mais tey jii lii nii comme ni ko sa waay waxee sondage la mais mais ak engagement bi immigré yi am diaspora bi am waaw surtout ñoom parce que dañoo bëgg a innover relever le défi teg Sénégal ci côte ko hmm. loolu mooy message bi quoi message bi bokk na ci tamit ñu bëri bëgg xam ndax amul ay conséquences juridiques mooy wàllu levée